maa ngi nuyu mbokki àdduna yëpp rawatina mbokki diaspora bi di ziare sama mbokki Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Argentine dañuy jiital ci nuyo bi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin ci xew-xew yi fi am di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikhuna cheikhul xaddim wasila di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te wér euh, mu mel ni ñun ñi nekk Argentine ak mbooleem fu immigré mën a nekk rek di euh, liggéey di daan sa doole yaakaar naa euh, dafa am lu la yëkkati mooy liggéey yóbbul sa njaboot di leen dundal ak di ci jariñ mboolem jullit ñëpp di ci jaamu yàlla am lu commencé dal suñu kaw ñun ñu nekk euh, Argentine te du benn du ñaar mais mu mel ni fan yi dafa yokk te dafa euh, commencé sax jéggi dayoo ci dana métti ci ñun ñi nga xam ne ñun la dal suñu kaw waaye particulièrement dana gën a métti ci ñi nga xamee si ñooy suñu famille te nekk Sénégal ñoom nag ñuy dalal seen xel di leen wax euh, nattu sunu borom da ko wàcc ngir doomu aadama yi waaye assainissement bi nga xam ne ni am na barki démb te euh, bi bi ci gën a fés am ci euh, Bartholomé Mitre vingt sept mille ci galeria Grand Poder ak galeria central ak yenn kër sénégalais yi euh, ma ci lancé benn appel sama mbokki sénégal yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax ku ne xam ne ni Euh, assainissement bi ni mu dal ñëpp ñenn ñi seeni i bërëbu kaay la ñenn ñi seeni kër te euh, dëkk bi dañu fee nekkoon ñu bari nekk ci mbedd mi di jaay borom réew mi bëggatul loolu te am réew boo fa nekkee euh, da ngay fexe dox ci conditions yi nga xam ne si ni moom la la fa réew ma bàyyee bëgguñu fi jaay mbedd ñenn ñi respecté loolu ba dem jël ay local nekk si di fay seen i di fay seeni ingresso bruto di fay seen i monotributo euh, seen i lépp légal mais booy xool xew-xew bi ñooñu dafa dal seen kaw te mënuñu koo lay fenn mënuñu ko wax fenn euh, loolu nag booy xool comme ni ma ko waxee lugaar bi nga xam ne nii fa la am booy xool assainiment tey galère yaay bëri nañ fi ci dëkk bi waaye lugaar bi mu am nanu xool lan moo ko waral ñun sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk mitre yor suñuy local ci kaw Euh, booy xool sunu mbokki Sénégal yi nga xam ni dañoo nekk ci suuf nga xam ni euh, du ñëpp ni ma koy waxee rek ndax boo ne ñëpp a yem rek ñu bari xeeb seen cër waaye euh, xeex ak policiers yi policier dàq la nga dem bu demaatee nga ñëw te yow sa mbokk Sénégal yi nga am mooy ñu nekk ci kaw saa yoo bëggee euh, génn wala nga bëgg a dem ci kaw da ngay dem ci ñoom bëgg faa bàyyi sa mbuus mi nga xamee si ni yow li ngay jaay ci lañ ko def ci nga ko def te moom lañ lay tere nga yëg ak moom ci kaw dem ci lu mel ni place góora wala place Abdou Lahad wala place keneen bàyyi ko fa yow yaa ngi gàddul kooku àq dama bëgg lancer benn appel boo xam ne nii dañuy waxante dëgg suñu biir ñu dimbalante suñu biir te xam ni. Euh, am na ci yu xew yoo xam ne si ne ñun ñooy lorante sunu biir ndax ki jël place am dem ci kaw investir xaalisam yow nga nekk ci suuf te saa yu la police bi dàqee mën naa ne doo sax dem ci kaw mais après da ngay dem ci kaw bàyyi fa sa mbuus wala nga toog fa di waxtaan yooyu yëpp te réew mi ni ma koy waxee rek noonu ñu bàyyi di jooy amuñu fi ambassade amuñu fi consula réew boo fa amut ambassadeur amoo fa consul yow da ngaa war a nekk sa ambassadeur bopp di moytu. mais su fekkee ni eh, yow da ngay moytu bay far loraale doomu adama foofu nañu xoolaat suñu bopp ndax yonent bi daf ne la barara wala diraar nit ki bul lore bul nangu ku lor waaye bul lor kenn te ñun sénégalais ñu ngi lorante suñu biir ndax li fi am barki demb ci aussi benn sénégalais boo xam ne daf fee gaañu métti na ñëpp wallahi lazim man ba mu gisee sama rongoñ tuuru na mais loolu lépp booy xool de eh, nguur kenn mënta xeex ak moom. kooku tey la ko dal du am dëgg dan naan moom dafa résister te loolu muy benn euh, act boo xamee si ni ci dëkk bi euh, mënoo ci am dëgg ci kanamu policier bu ko defee bu fekkee da nga bëgg a mars nga dem ñaan autori autorisation ba am ko yu bari danoo war a xoolaat sunu comportement ci dëkk bi jéem a xam suñuy droit ñu nekk ci xëj na ñun ñi nga xam ne si ni ñoo nekk ci local ñu dal suñu kaw ñun moom dañoo tooñ waaye comme ni ma ko waxee dëkk bi ñoom dañuy topp parce que jàpp nañ ne Euh, li ñuy teree ci dëkk bi am marchand ambulant bi ñuy tere te sénégalais yi chaque jour yàlla ngeen sutural ñu ngi leen di gis ñu jaay ci mbedd yi te ñoo ngi am bagage jàpp na ne ko ñi ci kaw ñoo leen di jox bagage bi te loolu xëy na teguñu ko fenn waaye ni ma ko waxee rek lu mel noonu bu ñu koy seet yow doo may dëgg te bu boobaa euh, yaa ngi lor te ko yëg ndax ni ma ko waxee policier mën naa jàkkaarloo yow te doo ko xam di jënd ak yow te doo ko xam wala mu fexe ba laaj la tâche boo xam ne amoo ko nga ne xaaral ma yéeg ci kaw boo yëgee ci kaw. fekk ne moom li mu bëgg xam rek mooy yow daam fooy jëlee bagage te am maa sax xëj na fa nga ka nga dem sa xarit dong nga ci jublu da ngaa jublu ne sa xarit la nga naa dem kat ci diw sàngam donte sax jëlewoo ko intention dem yàqal ko mais naa dem ci diw sàngam war na am dàll bi war war naa am nangam nga dem fekk moom après moom policier bi li muy bind mooy kon ah kii li muy jaay ci kaw diw sàngam moo koy jox moo waral te assainissement yi am local ñii di jooy sama genre gi yëpp naan dañoo am ay su suñuy papier yu légal ak nangam fekk ne dafa am loo xam si lu ñu yàgg di topp la te bu ñu ko waxantee ñun suñu biir ñoo ko lorante sunu biir muy ñi nekk ci suuf ak ñi nekk ci biti ñoom la ñuy topp ñuy dugg ci local yi di fa bàyyi seen i mbuus di fa bàyyi seen i saak yooyu yëpp après des jeux suñu kaw parce que amuñu fi doole bu ñu wax sax ni xëj na loolu illégal parce que amuñu fi doole amuñu fi ambassade amuñu fu ñu ko jooy mais kon nanu xoolaat suñuy comportement ndax réew mi. Euh, am réew boo fa nekkee banu commencé laa xeet commencé la yab rek ci yow la euh, dama koy ni ma koy waxee rek àddina fépp a yem foo dem foo génn sam réew dem jàppal ne danga nga tumuranke mais nag pour nga bañ faa sonn genn coono gi yaa koy yaay défendre sa bopp na leen jéem a défendre sunu bopp ñun ñëpp ñaareel ba mooy euh, booy xool man sama place bi nu fa duggee am na benn ordre bu nu fa bàyyi te tey bi nu demee ci bi ma dajee ay quelques sénégalais am na ay quelques sénégalais yu gis yu mel ni ñoom naar am na ay ordre yu ma gis ñoom yoo xam ne aussi booy xool dafa am benn benn sos boo xam ne dafa ñoom ñoom dañ koy politique ci ñun mel ni dañuy wër ay oto ci ñun nga xam ne ordre boo xam ne dañuy da ngay gis ñun ne dañoo def mart numéro matricule oto sàngam dañ koy wër wala borom fii la nekk am réew ku fa nekk di liggéey ñaan nga teranga da nekkoon ci mbedd mi ñu jëlee la fa nga am sa local te kuy liggéey war a mën a am sa dëkkuwaay baax war a mën a am sa oto loolu dëgg la waaye fi may dellu si rek mooy tukki boo fa nekkee nekk euh, buur doo mës a neex buuru réew ma ndax euh, da ngay dégg ñu ne yërmande moo fi jeex mooy dañoo yërëmoon dem ba gis ne ñun ñoom li nu am li nu am ñun ñun ñi nga xamee si ni ñoo nekk ay réfugiado sax ñu ngi am loo xam ne ñoom amu nu ko boobaa faw en dugg ma bëgg rek ñu waxtaan ci xel ñun sénégalais yi ndax tey boo demee Europe dem États-Unis sénégalais yaa ngi fa dara oto yu leen neex mais xëy na foofu ak fii bokkul ñun fii sénégalais fi dugg yëpp xaaj bi ay révisionado lañ ñenn ñi amuñuy këyit te ki nga xam ne da nga ne yow daw làqu nga dugg ci réew ñu ne sa réew dafa pauvre nga ñëw fi kon xëj na am na benn situation am na boo ci commencé dund danañ la jéem a topp nag ne yow kon looy looy jaay ak ci lan nga nekk. Euh, te ni ma ko waxee rek bul wax dara di généraliser parce que am na ci Sénégal yoo xam ne nii ñoo ngi ak seen oto mais du doon dégg sax ci affaire yi parce que oto liggéeyukaay la ñu yor dem ci àll bi di liggéey mais gis koo xamee si day bëgg yor oto boo xamee si ni yow oh, dana dana dana demee neneen man de dama lay ñaanal mu mu mu barkeel te am nga am ci lenen ak leneen waaye waa réew mi duñu ko gisee noonu bu boobaa nag yow comme ni ma ko waxee léegi amoo foo ko jooy. amoo ambassade da ngay jéem a làqatu oto yooyu ñuy wër fu ñu ci tegee loxo doo mënoo am dëgg sax te wallahi alazim man aw ma oto dawalu ma ko bëgguma ko fi sax mais mais ordre bi ñëwee sama sama sama sama sama sama sama ñu ngi wër lu mel noonu am na ordre kër yu ñu yoo xam ne ak ak bërëbu liggéeykaay yu ñu yoo xam ne ñu ngi wër lu mel noonu kon xëj na ñun ñu ngi ñu teg ba te nguur gi fi nekk ak gi fi nekkoon bu njëkk bokkul kii moom dafa contre immigré rawatina ñu nit ku ñuul ndax te booy xool ñun sénégalais yi ñoo fi gën a tuuti ci étranger mais lu ñu dugg mop ndax mbedd mi bi ko fi jëkka yëkkatee ñu bari dem na débrouiller ji ñen ñi dem ci wuti local ñen ñi dem ci province yi mais ñun rek ñoo fi des di résister ba tey te xëj na am am na ci ay benn benn ay peruano ay boliviano ñu nekk suñu biir waaye booy xool sénégalais dafa am fit dafa mën a résister peruano dañu dugg suñu biir de mais bu ñu gisee fukki sénégalais taxaw sax dañuy du dañuy doon benn ñaar bu coow la amee ñu ne sénégalais la. nanu yeewu suñu biir nanu xoolaat suñu bopp oto yi ni ma koy waxee nit fu mu nekk ñaan fa teranga ñaan fa oto mais nanu ko nanuy nanuy nëbbatu nanu ko wàññi ndax mbir moo xam ne ni amoo fa kilifa amoo fa ndey amoo fa baay amoo fa ambassade tey te ñaan di tedd da ngay moytu te xam ne ni am na loo xam ne bu nu ko jëlee yaay xala ñàkk te itam ñu delluwaat suñu xel ci gannaaw waxu Serigne Ibrahima Khalil bu mu fi mas wax euh, te wàllu yu waxam wallahi alazim mën naa guddee waaye du fanaan àll moom day sëtub Sëriñ Tuubaa te su sañoon taalibe yëpp ami milliard ami oto ndax moo fi njëkk dugg fekkuma fi 2013 dégg naa 2012 2013 daf na woon kayit yi dana ñëw ñëpp dugg ami kayit moom kayit moo gën a jafe oto waaye lu mu wax ci oto yi na ngeen moytu oto yi waxi wàll yi du fanaan gannaaw na ngeen moytu oto yi la la fi waxoon kuy jënd oto nga wut oto boo xam ne ni oto bu liggéeykaay kese la mais wut yenn oto yi lex yi nañu ko moytu loolu sëñ Xalil waxoon na ko fi mais tey ñu bari dégguñu loolu wax ji nag li tax moo koy wax rek mooy wallahi azim damay bañ lii fi am continuer te te bu nu bu dakkul ñoom dañuy continuer ndax ndax état kenn mënta xeex moom te ñoom ñoo commencé di xeex ak ñun ñun wër ñax bu wow dem bay lakk bu tooy ñi nga xam ne seen yoon nekku ci mais parce que ñu ngi wër gars yi nekk ci mbedd mi ñu ngi wër fu ñu jëlee bagage bi ñu ngi wër euh, kan moo leen di jox bagage bi te fekk na xëj na ni ma ko waxee léegi rek ki yéeg ci kaw day demut ngir jël fa bagage demut ngir mais dafa day dafa am xëj na benn wàllu ndimbal bu muy def rek wala benn lu mu foog dem na su ma demee dinaa jàppale sama waay moo yor bagage sàngam mais fekk na yooyu yëpp nañ ko arrêté. yooyu yëpp nañu ko arrêté léegi dëkk bi kenn ku ci nekk nanga nga fi liggéey ak sa xel liggéey fi ak sa maayen euh, te bañ a jël lépp rek après parce que lu mel ni boo amee après dangay bu taxaw naan waaw dañ ñoo seetaan wala association bi sàngam wala association te fekk yooyu yëpp mën naa bañ a ñàkk man de wallahi lazim man Abdou Lahad maa fi doon sama ambassadeur bu bopp association bi nag maa ak sama carte euh, euh, te lépp lu ñuy def su ma ko déggee su ma ca mënee dem dem ca ndax man sama activité yëpp sax gannaaw liggéey bi daayira la yu ci bari daayira laa koy déggee mais teew respecté naa association ba jënd carte mais am na ci yoo xam ne ni ñoom mënuñu ci dara donte nag ñoom lépp lu daal sénégalais yi war nañoo mën a teew ndax euh, comme ñoom lañ mbuboo ne ñoom ñooy association bi lépp lu dal sénégalais itam maa ngi leen lancé benn appel ñoom itam ñu gën cee ñu ñu ñu teew mën a jàppale sénégalais yi ci seeni euh, ndax euh, nit ki ubbi local am yor ay droit am yor léppam kooku même xëj na suñu jëlee ay bagage am bu ci mënta dox yow li nga war nga koo mën a orienté jàppale ko ndax kat fii yaakaar na koy dimbal da nga koy dimbal te yàlla rek tax mais li ma gën a yitteel daal mooy ñun sénégalais yi defaraat suñu comportement place liggéeyukaay du place su waxtaanukaay fii place su cino boo fi dem boo demee da ngay jënd rek dem mais da gis ñun sénégalais yi ni may waxee rek dañoo lu ñu dugg moom day gis ñëw ci localu jàmbur bëgg fa toog vingt minutes waxtaan te ni ma ko waxee dañoo fës ñu nuy wër te defuñu dara wallaahi lancim ndax duñ fi jàpp ab sénégalais ba gis muy jaay weex duñ fi jàpp ab sénégalais ba nit mais bërëbu liggéeykaay yi nañ xam ne bërëbu liggéeykaay la buñ génnee nekk suñu kër yi waxtaan buñ dajee daayira waxtaan jël sa mbuus yeeg ci kaw dem na suñ góor a teel ma waaye ma dem tuur ndox teel ma ma dem nangam ko bàyyi ko fa ñu noté naa kon voilà kii moo koy jox bagage si nangam yooyu yëpp sa waaye nañ ko éviter nañu xam ne dëkk bi dafa changé waaye nag yàlla nguuram gi changé wut sëñ Tuubaa mi nu yaakaar itam ay xéwalam changé wut noo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne ni mooy ndimbalaakoon bi euh, yàlla na nu boole dimbali ñun ñëpp te musal nu ci ayu réew mi musal nu ci euh, njiitu réew mi ak musal nu ci képp koo xam ne nii yaa ngi jël pexe di ko jëmale ci euh, étranger yi rawatina sénégalais yi ndax ni ma koy waxee rek sénégalais yi jikko wute na. waaye bëgg-bëgg yi benn la kenn ku ci nekk bëgg-bëgg bi nga am mooy am teral sa teral sa kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ban mënu delluwaat suñu réew ci barkeb Seexul Xaddim te nu juwawaat te joxantewaat loxo te ànd ci dëgg te yàlla rek tax wormaalante dimbalante tey waxante dëgg te bañ a bàyyi bu nu wéetee di nekk ci yéen yi amul solo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.